Wakam TV muy 2S ñëpp day am seen signal ñoom biñ ne ñu ngi ñëw sëñ kër sëñ Mamour Bousso ca Daaru Minam ñoo ngi leen di xaar pour ñu joxe signe bi signal bi pour ñu def ko en direct mel sëñ bi mu kaalaw indil fii Bousso Bali ñaawoo boo ñaawoon sax bëgg nañ la man man duma jox sama bop serigne bu ñaaw sama wu ci bo ñaawon mané la fi ñuk lolo tax ma bëgg serigne Cheikh Fall borom digal dama ko bëgg tax dafa dafa doon waaw ku boga bu njaabee rek nga daanu jël <laughs> kurus kaa ngi nii bu sabali ma nga jël lepp tey dama ragal ni sant ndaw ci la fi mo bu bi tamit mu ngi fi laa ilaha illallah nga ne jox naa la xaddi Sëriñ Tuubaa taala yar naay loxo kon mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu fii ci kër Serigne Mamour Bousso moom Serigne Abdoul Moutalib Bousso fii ci Daaru Minam bu Serigne Basirou muy màggal édition deux mille vingt-deux ñu ànde ko ak Serigne Mamour Bousso mbokk yi Wakaam Wakaam TV ak ak Zone TV ñoom ñëpp ñu ngi nii kenn ci ñoom ku ne 2S euh, TV kenn ku ne mu ngi xaar signal yi ñu def ko en direct kon jëmm ji ngeen jàkkaarloo muy Serigne bu Bousso doon jëwriñ ju sëñ Muntaxa Mbakke teg ko Bambilor mu doon ilimaanu ratib muy jiite korité ak tabaski ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha ñoo ngi ñaan sëriñ bi yàlla na ko fi yàlla bàyyi te may ko wér sëñ Mamor kenn la ci yoonu murit ndaw ci Zahir yaroo ci peggu Serigne Saliou Mbacké ba bind kaamil jox ko Serigne Saliou Mbacké ci ndigali ay waajuram ba sëriñ bi nu mu ko yebalee Mambilor mu toog foo di liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasul waaye liggéey bi yëpp Serigne Touba bënnee buntu ba ci xasida gi nuy wax jaalibatul maraaxib ba ay ndaw yu bari di góor ji jigéen sëñ Amdi sëñ Alaaji sëñ sàmba ak Baye Sayer moo xam ne moom moo yor kàddu daara ji di bàyyu daara ji féete sëriñ bi fépp ñun ñoo gën a doon ay tànk ci daara ji ñu nekkal sëriñ bi ca Touba Sali ca Mbuur sëriñ bi diñu fa fekk diñu dimbali nga xam ne giseek moom léeg day jafe mu doon jëmm ju xat koo xam ne àdduna sépp riir nañu wut si ko waaye muy dagg ay yitteem di ñëw ci ñun di am ak ñun ñetti fan di jël ay tarangam di jël ay ñaanam di jël ay yéeneem di jël taam di ko def ci ñun waa Saly moo tax ñu mobiliser wu à force mobilisation ñu ñëw di ay sang di soxna ñun ñëpp ñu ñëw ci kanamu Serigne Mamour Bousso Serigne baa ngi nii toog mu ngi sant ñëpp di sant mbokki boppam yi ak nijaayam ji mu fekk ci kër gi ak njabootam gi yëpp. li sant waa daa daayira yëpp waa Tivaouane seen délégation ñëw na fi waa Layeen seen délégation ñëw na fi mbooloom këru diine yi kenn ku ne ndawoon ñëw na fi mu màggalee ko màggalug yor-yor waaye guddi gi da koy dundale xasida bernde yi xasida yi ñoo ubbi alquran karim ay sang ak ay soxna yi sant Bousso ñoo wàccee kaamil alquran yi nu fi jàng ci ndigalu Serigne Mamour Bousso ña nga xam ne ñi wàccee kaamil gi gëpp du ñoo xamante ne da leen waliyaan yi waaye ci biir jëmmam ji la ñu jógee ñu wàcce kaamilu alxuraan yi ñu fi jàng kuréel yi boobu ba tey ñu ngi jàng kuréel gi mu jeete njàng mi muy kuréelu jëf-jël bu Serigne Mamour Bousso bu Touba Sali kon ñu déglu Serigne Mamour Bousso moom Serigne Abdoul Moutalib Bousso moom Serigne Bousso be moom soxna Jaaratullaahi Maam Mariama Bousso waaye Serigne Mamour Bousso mu Sëñ Gaawaan waaye Sëñ Mamour Bousso mu Cheikh Ibra Fall waaye Serigne Mamour Bousso Mouhamadou Fadilou Mbacké borom Ndindi Bousso Bali bismillah wa sëñ bi nee na wa rahmatullah mbokk taalibe yi sëriñ Maam Mor Bousso nee na mu ngi len di nuyu di jital ci nuyo bi ak siar bi Cheikh mohammedul muntaha Mbacké khalifa général du mourid diko ñaanal mu yag fi lol ta andako gouverneur amin ci barke borom Touba diko ñaanal khalifa diine yëpp di ko ñaanal kilifa aada yëpp di ko ñaanal njaboot gépp Sénégal gépp ak fu sénégalais mën a ne ci àdduna ñu ngi koy ñaanal jàmm ak xéewal sëñ bi nee na mu ngi nuyu euh, Wakam TV ak ak zone 7 TV sëñ bi nee na mu ngi leen di sant bu baax moo ngi nuyu fondation Dialibatoul Marakhib ànd liggéeyal Serigne Touba jiital ci jëwriñ ji am di Moustapha Sow ak mboolam ñu ko àndal di sang di soxna waaye daayira jëf jël bu Touba Sali njiitaluk Baye Murid Ba Serigne bi nee na mu ngi luy nuyu bu baax te dina siyaare ñuy jóge ba Tiwaawan njabootam gi nekk bitim réew ñi nekk Amérique ñi nekk France ñi nekk Italie ñi nekk Maroc ñi nekk ñi nekk Gambie ak Siin Chinois yi di taalibe sëñ Mamoor yi Souleymane japonais doon seenu jëwrin Souleymane Chinois doon seen jëwrin sànq ba tey moo fi nekk di séddale. di sant it Moussa Kalamu borom sonorisation bi. ak ñi fi nekk yëpp. ak docteur yi nga xamante ne ñoo yor wàllu paj mi. soxna Sanu Ndiaye. ak madame Ndiaye. sant nañ leen bu baax. taxawaay bi rafet na lool. nee na mu ngi sant nijaayam ji mu fekk ci kër gi. alaaji Cheikh Gaawaan Ka di sant kilifa bu baax kilifaam mu ngi leen di sant bu baax sëriñ Abdoulaye Bousso sëriñ Khalifa sëriñ Abdoul Moutalib Bousso waaye sëriñ alaaji Fallu Bousso di xalifa ak sëñ Afia Bousso sëriñ Cheikh Anta Mbakke Daaru sëriñ Moustapha Diatara daaray Kaamil sëñ bi nee na mu ngi leen di ñaanal bu baax te sàkku ci ñoom ñaan di ñaanal kilifa yëpp di ñaanal njaboot gi sëñ bi nee na ñu ngi leen di sant bu baax ci wuyu si bi ci sëñ Tuubaa woote mu ne ñu santale ko yàlla boroomam ci bernde lu ko dalee ca ganaar ba ci gëléem waay man lu ci waay man na ko ci defal na ma ko di bég tey bégle yàlla defal yàlla defal na ko sutura njaboot gi def nañ ko ànd ko njaboot gi yëpp sëñ Tuubaa li mu tuddoon ci làmmiñam mooy ganaar béy xar nag gëléem lu fi nekk wàcc na fii ci dal bi ñu santale ko borom Touba boromam. waaye di wëlbatikuwaat. di jagleel borom Touba ci jëmmi boppam ak cant. ndax la ko yàlla defal. ndax la ko yàlla defal. ba mu wax ne lottu na ci sant ko moom dong. ba mu wax ne lottu na ci sant ko moom dong. képp koo xam ne sa mbég sama mbég la. ne ma kaay santale ma yàlla sama borom. ci bernde. alxuraan. salaatu ala nabi ak lépp lu baax moom nag bi ko yàlla defalee xewal googu ma noppi daa wëlbatiku defal ñu ñun ñii lu ñu jomb cant ji ko war ci boroomam ba muy woote wàllu ñun di ko santale ñun war nañu ci moom borom Tuubaa ñu koy sant bay wut ku ñu ko santale kon alhamdulilahi rabbil alamin na ko mbooloo mi yëpp wax jërëjëf Cheikhina Ahmadul Khadim màggal gi nag màggal gi nag war naa jur ay njariñ ci ñun ay jeexantal yoo xam ne bu nu demee dañ koy yóbbaale fa nu jóge ñëw ña màggal si ba déwén ak jàmm yóbbal googee mooy gan bokk na ci roy sëriñ bi ci jom ak ngor ak fit jom ngor fit fu mu àgg rek moom sëñ Tuubaa looloo ko fa àggale jom ngor fit dëgg la de ku ñëw ci màggal gi war ngaa xam ne yàlla telewul dara bu yàggutoo Njaay. nga xam ne ñu fekke woon sanc ba. nga xam ne ñu fekke woon sanc bii di dëkk bii di Touba. am na ñoo gis nañ ñun gone yi. xamante ne. ñun gis nañ leen. ñun ñoom gone yi gis nañ leen. kon yàggut kon yàggut. bi sëñ bi di wax naan Touba dana mel ni Ndar. bi sëñ bi di wax ne Touba dana mel ni Ndar. boobu ay ay ay ay mbaari sàkket ñoo fi ne sëñ waaye itteem. it tey sëñ Touba dimension am kawe lool kawe lool waaye fu yitteem rek waaye fu mu toll rek fu yitteem toll rek jom gi na ko fa gom gi yóbbu na ko fa fit wi yóbbu na ko fa fit wi yóbbu na ko fa ngor gi ko ngor ga yóbbu na fa Ahmadou borom jaam ñi jërëjëf borom Touba kon war nañoo roy Serigne Touba ci ngor ci jom ci fit dara lu baax jëmmuñu. xam ne dara lu baax. yombut jombuñu ñun. tey ak ëllëg. lu waay bëgg. na ko def pas seef. na ko te dox jëm ca. te dox ca nag. te xam ne yàlla rek ka fiy dimbalee nag ku baax. moo xam ceru àdduna la. moo xam cer la ci yàlla. moo xam lu mu a doon. bul jombale sa bopp yow sang bi wala soxna si nekk wali yi ñu déglu bul jombale sa bopp nekk xutbu zaman bul jombale sa bopp nekk borom kër bul jombale sa bopp nekk ministre bul jombale sa bopp nekk directeur wala directrice wala président wala ambassadeur bul jombale sa bopp dara yow taalibe borom Tuubaa bi loo bëgg rek doxal dem ca ndax borom Tuuba fi bi ko rasulilah salaay salaam feeñoo ba wax ko lim wax ba laaj ko ak bëggam daa kawe yitte lool da ko ne ñii nga àndal muy waa ahlu badar laa bëgg bokk. sëñ Tuuba du nit de. la ilaha illallah. Ahmadou. lu dex lu des sa diggante nga nekk xutbu zamaan ñetti weer képp la ndax kenn du ko doon te amoo 40 te li des pour nga nekk xutbu jamono des na la ñetti at ñetti at ñetti weer ñetti weer tebal nañ la ko jos jox la ko bis ni tey mooy xutbu zamaan Tuubaa daan ne ko sëñ Tuubaa daan ne ko loolu de baax na waaye sama bëgg weesu na loolu ay xutbu yi <laughs> ñii nga àndal daal laa bëgg a bokk ñii nga di waa ahlu badar yi man Ahmadou Mbacke ci laa bëgg a bokk est-ce a ngi borom ne ko Ahmadou loolu li koy maye sallallahu alayhi wa ne ko Ahmad Bamba loolu li koy maye mooy tur deret te jeexna moy jihadu nafsi legi legi bari wana ku tollon fi nga tollu ñu feño ko niñ la feño yow borom tuba waye biñ ko waxe li bëgg lu dul li du bëgg lu dul don li waye biñ ko woné day daw yow Ahmadu man Muhammad dama la bëgg bëgg gu wér te nëbbuwul bëgg lu mala mu ne ko Ahmadou Rasulullah yoy wax ak mom dé né ko li likoy maye dis na lol tay borom tuba man sama bakkan la sàkku bay xam num mu num nu borom tuba ne ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama bakkan la sàkkut ba xam lu mu atana ak lu mu àttanut waye lu sama bakkan atan atan sama jom dékku na sama jom dékku na ko laa <laughs> ilaaha illallaah waa daa jaarul ci yoon bi mu ne ko ah, kon ñaaray mën a am natt bi doog a ñëw déglu leen bu baax ben bi dangaa nekk Tuuba dégg nga benn bi dangaa nekk Tuuba te it dañ la koo di touba ba dara lu lay metti du dugg fi di la metti beneen bi ci topp itam. beneen bi ci topp itam. dangaa am nijaay ju ñuy wax Serigne Bousso Bousso. dangaa am nijaay ju ñuy wax Serigne Bousso Bousso. bokk ak Soxna Jaara lépp. bokk ak Soxna Jaara lépp. day xaritug yàlla. ba lu mu wax yàlla yàlla def ko. ba lu wax yàlla yàlla def ko. buñ la tegee nattu bi. buñ la tegee nattu bi. xolug waajur mën na koo jàpp. xolug waajur mën naa jàpp sëñ bu bi. mu ñaan yàlla teggi nattu bi te yàlla da koy teggi jaayante génn. mu ne ko kon day jaayante génn. dem Mbàkke Bari. ruug sëriñ Busoobe sàkk moom. moom ruug sëriñ Busoobe sàkk ko. sëñ Touba daal dem Mbàkke Bari. Eh, sëñ Busoobe jaayante jaayante. wuy ji boromam. wuy ji boromam liggéey. keroog bi mu ñëwee Mbàkke. ba siyaare si ba siyaare si ba siyaare si jaale si ba dem Mbàkke Bari ci la convocation borom ndar ñëw tabbi ci loxoom natt bi tàmbali sëñ bu soobee dem na wuy ji boromam natt wi tàmbali na ñu naan yoon wi bakkan desu ci bakkan ba jiitu daa diis wataale bakkan yi waroon dem yëpp yéen demal leen ngir liggéey bi mun a tàmbali mooy sëñ bu soobe ndax bu sëñ tubaa demul woon dara du ko jar ci suuf waaye ay nasaraan la ñuy doon bu boobaa ndax nasaraan fee boobee ñoom ñoo fi ne am fi doole not réew mi not waa réew mi ñuy dox ci seeni principe kenn sant dund sa pas-pas na ko bëgge ndax Serigne Touba du liggéeyal l'islam sëñ Moussa Ka yaangi deg mu nan islam di joy yekkat ba genn gaday islam di joy yekkat ba genn gaday ci soowu jant fépp melni lambay ci soowu jant Cheikh Bamba dal di ñaan ci barkeb jiili ne yàlla maay safihu kullu jili saflan ma jorlan ma dana ko jamu ma namul daloob islam nama dal xam ngeen ko moy ñi yenu saku yi saku lu mu dis dis dis rek mu ne nama dal nee na mooy nammu daloo taxaw Islam gi islam ba islam sigi cheikh sad bo Abi kilifa la ci tariqatul khadriya di sëtu yonent yalla Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sëñ Tuubaa bi mu borom am ba ñëw den islam lay ndokel ndax islam mo am ndam ndax bi nga demee da mel mel dañu poñe islam yow borom Tuubaa islam bu mu dol nii tënkeeku na. kon bu nu fàtte Mbakke. te bul fàtte xeetu rasulaay salaay salaam. cey waay. kookoo yaatal. kon nag sëñ bi nee na yéen waa télé bi ngeen xam ne sëñ Tuubaa daal. telewul dara. telewul dara. te ku yaatal la. te ku la. tarixa yëpp. tarixa ni ko sëñ waxee sànq. sëñ Tuubaa tarbiyewu tarbiyewu na leen liggéeyal leen ba làq seenu ngërëm ba ti ba ci biir tarixatul muridiya dafa am ñuy joxe werdu xaadir daana joxe werdu tijaan di joxe werdu maxuus te yooyu yëpp ndigalu yent yàlla Muhammad salaay salaam la ndigalu boromam kon kuy murit bu la tarixa tënk nanga bëgg sëñ Tuubaa nanga doylo doyloo sëñ nanga wolu nga wóolu nanga yaakar na nga nanga wormal ñep waye nanga wormal tariika yep nanga nangul ñep na nangul ñëpp ba ci chrétien yi bul xeeb ken bul xeeb kenn bul doyadal kenn bul yap ken bul yab kenn ay way ta xamne ken deful ken dara ta xamne ne sëñ Mamor nee na deful ken dara ken defalul ken dara ken defalul ken dara lu way def sa bop kon señ bi nee gor gor lu bu baax. walu jaamu yalla wax suy juróom. ñu fonk ko. ndax bis bi ramul bis bii. islam. rammul islam. taxawul islam. moko islam. moo ko taxoon te bokkon na ci pexey tubab bi. te bokkoon na ci pexey tubaab bi. biñ ko yebé ci gal gi. biñ ci ba àgg ci digg geej gi. ba àgg ci digg géej gi. waxtu julli jot. bu dee sariya. waaw am na ngant julli bu dee sariya waaye Ahmadou Mbacké xaadimu rasul faat waxtu boroomam da moom bu faatoon waxtu bi rek at tukki tubaab bi ne ko maa rabbu waxtu bi jot na de doo jullee ci gaal gi ndax boobaa di tooñ te yaa ne woon doo tooñ sa moroom ca ndar te boo julliwut da tooñ sa borom te daa ne woon dootoon sa borom laa ilaha illallah ñaari conséquences ya ngoog foofu nag mbor ma ñëw ngor gi ngor gi am ñëw ak fit wi ak jom ji laa ilaha illallah mu daal jël der wi sànni ci jiir géej gi ne der bi bu gaal gi raw bato bi daw gaal gi daw sëñ Bamba di julli xaadimu rasulaayi borom géej gi borom jàkkay géej gi borom jàkkay jéeri ji xaadimu rasulaayi bàyyi basak baara maami danak seex rakki Mamor Jaara maami sëriñ Mamor Bousso doxal nga xam ne borom Tuubaa muy julli bu sikkee rab yi yëpp dañuy génn allahu akbar bu sëñ Tuubaa sëggee du sëgg ñu sëgg bu sëñ Tuubaa sujuudee ñu nuur laa ilaaha illa ya ahlal barri ya ahlal barri ujuli barri bahri saxaayi ba sëñ Tuubaa ni mu sëlmalee Mamadu Falilu duggaat ci gaal gi ci la tubaab bi wax ne Saliou ci la tubaab bi wax ne sëñ Tuubaa yow ko am góor nga ndax ki mun a doxloo der ci kaw ndox xam naa ne bu ko neexoon mu jaar noonu ñibbi di te duñ ci mën dara te kenn du ko dab waaye boobu dañoo war a xam ne ñoom ñoo jàppoon ne dañoo jàpp borom Touba Ablaye Jéeme sëñ Touba jàpp Touba bi <laughs> sëñ Touba jàpp Touba bi de jàng ngeen ko ndax sëñ Touba nee na Serigne Mamour bu sa jottali nu ko nee na Touba bi musuñu koo def loo loo xamante ne neexu ko moom. te sëñ Touba lu mu bëgg a defloo tubaab yi defloo leen ko te duñ ci mun dara looloo tax sëriñ bi bind asiru mahal abreer yi xiina waaye wasannal hida anni hunaaka asiru jërëjëf Bousso boobu bi muy waaj a dem ndar boobu dem ndar la bind tàmbali xasida mu jox ko ki ñuy wax sëñ Mut Njaay maa beey Ndar ne ko yaay may seere naa la fekkaan Ndar danaa dem géej dellu si fekkaan la Ndar boobu neexut saay boobu neexut a gëm de sëñ Mut Njaay Mbaabe sëñ Mut yàlla la woon sëñ Mut Njaay Mbaabe nitu yàlla la woon te xam na li ko dese ci jamono bariwul te moom xamoon na ne li ko dese ci jamono bariwul te kii day dana fa yàgg te ci tukki gi ñemewut a wax loolu moo tax bi sëñ Tuubaa ñëwee ne ko waxoon na ma ko de mu ne waxoon na ma ko de laa ilaaha illallaah waxoon ma nga ndar ba tey te it ba ma waxoon ma nga ndar ba tey kon ki ko waxoon ma nga ndar ba tey kon ki ko waxoon ma nga ndar ba tey barab ba mu ko waxee woon ma nga ndar dem naa ba julli fo amna na ndar-ndar bo xamne doon murit jamono jooju. am na ndar-ndar boo xam ne doonul woon jamono joju waye liko jaxalon jaaxaloon ci sëñ Touba. waaye li ko ci sëñ Touba. comme ñu wax yenn yenn yenn yenn yi mu àndaloon. yenn murit yi mu àndaloon. ñoo ne seen waa de. mu ne leen yéen seen waa de. fit warayna fit warayna ba amna lu mu andal ba amna lu mu andal mbolam ku tukki. mbolam ku daan tukki. na wax ñaanal le ma dem ci ñoo jamm da na wax ne ñaanal le ma ma dem ak jàmm. rawatina tukki tukki boo xam ne dañ laa jàpp. nga naan tàll leen ma ñaanal leen nga naan tàll leen ma ñaanal leen. la ilaha illallah. dégg ngeen dégg ngeen wax ji. Serigne Touba moom la Touba bi jël si. mu njaboot gi tàllal leen ma ñaanal leen. ab ndar-ndar boo xam ne doonul woon ab murit ci jamono jooju daa dina murit yi mu àndal mu ne leen seen waaj yi am na fit wala lu am na lu mu àndal. bi mu nekkee Ndakaaru gii. Cheikh Ibra def na pexe gu ne ngir sëñ Tuubaa a dem waaye Cheikh Ibra sëñ Tuubaa ne ko Ibra Fall dellu leen ci kër ya ngeen jaamu ci yàlla damay liggéeyali yéen ci yàlla Muhammad salaay sallam maa ngi dikkaat léegi ngeen añ lii ma fi bàyyi lii ma fi ci damm xaddu ci damm la ilaha illallah fi mu bàyyi woon yoon fi mu bàyyi woon yoon wi ba mu ñëwé fu ko raw la ko fekk ci jambaru mam cerna Ibra fatin damal darul mukti ak ñamu andalon ñep ndax bi muy dem yit mam cerna la denk njabot gi ne ko yoré baxna fo len yoré rek baxna denk lam koy denk denk lam koy denk mu sam ko sam gu reuy ba ñëwaat yoon wi gudd yoon wi gudd metina metina na metti ay xolal na sori na waaye eh, xoolal yaatalam waaye xoolal yaatalu borom tuba gi ak bëgg ñëpp ak bëgg ñëpp ak yërëm ñëpp moo mu ne irham jami al wara ya hadi haadiya radaha ne suñu borom nee ko tukki bi yag na de tukki bi yàgg na de metti na de te sori na. na. loo bëgg ku la ko ci defal. loo bëgg ku ko ci defal yow Ahmadou. mu ko tukki bii ma tukki day. mu ne ko tukki bii ma tukki day. bëgg naa ci loo xam ne. bëgg naa ci loo xam ne. lépp lu waay bëgg ci lu baax. lépp lu waay bëgg ci lu baax. di ko wut. di ko wut. naa ko ci am. naa ko ci am. te bokk ko ak ñëpp. te bokk ko ak ñëpp. moo gore. ñëpp nag ñëpp a ngi ci. ñëpp a ngi ci. ñëpp. ku ci génn yaa ci génne sa bopp. waxul waa lislaam. waxul waa lislaam. waxul wa Murid waxul wa tidiane waxul wa senegal, mbokk ko ñepp la wax ñepp nak ku ne ci li kun bi kun sarmadan wajhal masiri yasa ya jawfal fara jawfal lil wara mislal maharini khadim rasulullah borom gigi, na ci am lepp nak lu bax te neex tem temi ba lem te bokk ko ñëpp ay ndeysaan suñu borom ne ko suñu borom ne léegi liggéey bi mat na nag tukki bi yàgg na liggéey bi mat na njaboot gi nga bàyyi Sénégal namm nañ la loo bëgg a yóbbaale sérité déglu leen loolu bu baax mu ne ko ijhar rujuu yi ilaa qawmi sahadatana wal takfina yawma jamhi xal kaniraana defal sama dellu ca réew ma Sénégal muy tax ak waa réew ma te nga fegal leen sawara ëllëg ku ne nga ca waa réew mi la wax waa Sénégal la wax fu sénégalais mu ne ne la foofu la ñibbi borom Touba mooy tax waa réew mi di leen fegal sawar ak ëllëg tey Bousso yaa gore sëñ Touba gore la de sëñ bi nee na sëñ Touba daa gore de moo tax sëñ bi nee na ñëpp ko war a nangul ndax moom ñëpp la nangul te lépp lu mu bind rek dëgg la wa wamaa yantiqu anil hawa yenent bi du waxee bakkanam waaye sëñ Touba du waxee bakkanam de lu mu wax rek dëgg la lu mu bind dëgg la ndax juboo na ci ak boromam sëñ Tuubaa du yàlla du yenant du malaayika waaye sañ na ci yàlla lu yenant sañu waaye sañ na yàlla loo xam ne yenant sañu ko sañ na ci yàlla lu malaayika sañ na ci yàlla loo xamante malaaka sañu ko ndax day xej ndax day xej xejji boromam la ab xejji nag ab xejji nag mën naa sañ ne ci kër mën naa sañ lu ne ci kër waaw xëj ji xañ na lu ne ndeysaan sañ na lu ne sañ na lu ne te ku ko xejjal te ku ko xejjal te ku ko xejjal te ku ko xejjal du ko wax lu tax du ko wax lu tax moo tax sëriñ bi wax ne yaa maalikal mulki lii wax saxta duuna jawan fil mulki wal malakut dëxërëyallaahu tey xaadimu borom géej gi sunu borom mbërgal na ma toppatu ko dara mba yalla nama na ma may fey man borom Tuuba fu ma neex ñu ne xana kon mulki rek la ñu fon mul xanaa mulki gi rek la mu ne waay ba malakuut dara yalla fii ak fi ak jamono ngi am jant baa ngi fenk di so non lay jere jeuf bu so kon ñun li ñu am kenn amu ko alaaji ki ñu am kenn amu ko ku dul ñin ñu ko am nan ko jàpp bu baax te bañ koo booleek dara ndax kenn ku ne ci ñun la la booleeg sëñ Tuubaa yaa ko waxal sa bopp te gor bu waxee day sàmm waxam ñun ñoo ñëw ci moom ne ko ñun ñoo ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko jébbal nañ la sunu bopp àddina ak alaaxira loo ñu digal ñu def loo ñu tere ñu bayyi señ tuba mo ñu digal magal gi sëñ Tuubaa moo ñu digal màggal gi am déet lañ ci def ci def lu nu mën ak lu nu mënut moo ñu digal jang khasida na lu ñu ci jàng doyut moo ñu digal jàng alxuraan nañ ci gor gorlu mo ñu digal joxe addiye mo ñu digal fonku waajur mo ñu digal fonku waajur fonk waajur fonk fonk waajur rawatina waajur wu jigéen fonk waxtu juróom fonk waxtu juróom sëñ Tuubaa ku fonkoon soxna jaara la jàngeen si nit di xanaa jàng waaw jàng nañ ko kay dégg ngeen la mu wax ci soxna jaara ci sindi di rëy na de te fenn dong la joxee rendez-vous te fenn dong la joxee rendez-vous nag ne ku fa ñëw fekk ma fa mbaa ma fekk la fa waxul Tuuba waxul Madina waxul Makka waxul Deqale waxul Dakar waxul Tiwaawan Poroxaan la wax barabu maam jaara nee na si yaayam moom du fa gëj ku ne fa ku ne fa ku ne fa cëpp fekk ma fa mbaa ma fekk la fa man xaadimu rasul borom jëm ñi kon lu ñu fonk lu ñu roy sëñ Tubaa ci fonk waajur rawatina bu jigéen bi nan ko xeeb jaxeer dégg nga nañ ci góorgóorlu bu baax waxtu bi yàgg na sëñ bi toogaayam bi yàgg na lool te sonn ngeen hmm? waaw baax na sëñ bi neen ñu ngi ñu ñaanal jàmm ak sutura ak tawféex ak taraanga nee leen amin nee na lu nu am yombul de sëñ Tuubaa mi ñu am yombul de nañ ko téye de te moo ñu may liberté ba noppi nag tënku woon. tënkoom boobee. tënkoom googee. moo waral sunu liberté gii. mbaa xam ngeen ne sëñ Tuubaa musta am liberté. ba ni mu wujjee boromam. ci résidence surveillée la nekk ba ni mu fi jógee. fu yéen ñii ku leen laajoon. nattu sëñ Tuubaa. ban dëkk moo ci gën a métti. fan ngeen di wax ah? nee nañ Dakar waaw wax leen ba wax leen ba pare rek sëñ bi tontu man de ci kanamu sëñ bi xaw ma dara pare ngeen sëñ bismillah yii ngeen waxtu ci benn déglu leen sëñ bi nee na xam ngeen bu ci gën a metti njaareem déglu leen bu baax xam ngeen xiif te gisoo loo lekk xetug loo lekk sax xeeñu la xanaa di nga mën a muñ xiif ba de ah wala déet nga xiif ba noppi gisoo loo lekk xetug li nga war a lekk xeeñu la di nga muñ de waaye xiif di gis li nga mën a lekk mu lay xeeñ te munoo cee lekk ay waay metti na de. moo dal sëñ Tuubaa nag. ndax li mu nekk ci àll bi yëpp. ndax li mu nekk ci àll bi yëpp. mu ngi namm Tuubaa. mu ngi namm Tuubaa. di tuba Touba di bind ci Touba rek di wax ci Touba di yàkkamte rek Touba ba ni mu jógee ci géej gi ba ni mu jógee ci géej rek ne Touba ba darusalam mu ñëwee darusalam Salaam ba ni mu demee gànnaar ci kër si Sidi Al Muxtaar ba ni mu ñëwee ci yéen Jolof ba ni ñu koy jëlee ci yéen nag ba koy jëlee ci di ko indi fii Njaareem sama dëkk ba de namm naa ko mu daal di ne sama dëkk ba de namm naa ko ndax yàlla ma gisaale ko ndax yàlla ma gisaale ko ndax ku jóge ci yéen di dem di jëm Njaareem di nga romb Touba sunu borom ne ko waxuma la nga jaar Touba waye mayuma la nga gis ko. mu jël kala gi. daal di jël kalam gi mur ko ci ay beutam bañ bañ bañ tollu bañ bañ weesu bañ toll kàddu balloo ji. bañu tollu kaddu balloo ji. ba romb Touba. ñu ne ko romb Touba. ñu ne ko romb nañ Touba. mu door a murit bëtam yi wuti njaareem bi mu nekkee njaareem demande na ba tàyyi demande ci tubaab yi ngir dem Touba siyaare ñu gàntal ñu ne ko déedéet te fa la njabootam ne sëñ Fallou nga fa sëñ Maodo Moussa mu nga fa sëñ Basirou nga fa soxna yaa nga fa ñu ne ko déedéet munoo dem do gis sa doo gis sa njaboot doo dem ci dekk ba señ bi lolou metti na de lolou metti na de señ bi xalaat len bu baax wax ni señ bi ha no motax ñun ñu wara goré señ bi nga rombu dekk bi nga gëna bëgg suñu borom mi ngay liggéeyal mu ne la mayuma la nga jaar fa waxuma la jaar fa waye nga tekk ko bëtt nga jël kala kala gi ngay wo takku ko sa bëtt nga xam ñewatu fi nga xam ne ñëwaatul ba ni mu wuyjee boromam 1927 ñu indi ko fii ci Touba dëkk bi ñu toog. nga xam ne 1895. ba 1927. duggul Touba. ëtt na kay sëñ baax na. baax na waaw. waaw baax na jërëjëf. sa yaram jërëjëf. sama xol sori na de yaaram waaw ah, bëgg naa lool am di mii xolam fees na del waaw waaw ah, barki borom Tuubaa xol xol yi fees na del tout tànki yi toog nii yëpp kenn ci maanaam sëñ bi loolu loolu sëñ bi ku ne méttiwut war ngaa gore daal sëñ bi sëñ Fàllu dëkk bi nga sañc ci sañc ko ci fitna nga ñëw ba jege ko nga xalaat ne yaa ngi yàkkamti teg ko bët suñu borom ne mayuma la sax nga waxuma la nga jaar fo waaye nga teg ko bët mayu ma la ko nga jël kaala takk say bët sëñ bi xalaat leen waay ba nga romb lu yàgg ñu ne la yaa ngi kàddu balloo nga muri kaala gi ngay bind ay demande ngir ñu bàyyi la nga ñëw Touba rek gis sëñ Fallu wala sëñ Mor Moussa wala njaboot gi wala dugg ci dëkk bi rek génnaat ñu ne la déedéet. sa ku Musaana jóge du la gëme. moo tax ku Musaana jóge Touba du la gëme nga fekk ko njaareem billaahi du la gëme. da lay xool rek. dëkk bu yéeme lan ne lu nu fi sàkk buñ ko amut ci ñun la barki sëñ Tuubaa Mbàkke dëkk dëkk bii la fi ne billaahi wal kitaabi Serigne Saliou Mbàkke bu musaan dugg ci dëkk bi jóge ko du kaalawu du sol daal la barke xasida yi borom Tuubaa yi bu duggoon ci oto ba seen làmp faal ak fu mu ko mën a seenee day dindi kaala gi teg ko ci kawam doon na takk mattu mu njëkk mattu bu mag da koy tekki summi dàll yi waaw baax na kon tele yi bëgg nañ lool mooy Wakam TV ak jeunesse seen seen zone zone 7 TV ñu ngi sant bu baax yàlla na lii dem ba dooni ay télé yu mag a mag ci barke Borom Touba ci barke sëñ Mamour Bousso barke Cheikh Ibra Fall sëñ bi tout tànk yi soxna yi sang yi sëñ bi nee na ñu góorgóorlu bu baax ñun ñëpp ngir nan sagal sëñ tubaa sëñ Touba nee na musuma def lu rusloo samab taalibe waaye bëgguma samab taalibe di def lu may rusloo góor ak jigéen wettib néeg wala benn nit wetti néeg di def lu naqari yàlla lu naqari sëñ tubaa jàpp ne sëñ Touba gisu la sëñ bi jarul nga koy yaakaar ci bàmmeel ku la mënta gis ci néeg lu ma lay ji lu ma lay gisee ci bàmmeel ginnaaw yi dangaa jàpp ne moom gisu la maman bi nga yoree sa téléphone xool lu la neex maman bi nga yoree sa téléphone di ci xool lu la neex nga wéet ak góor di def la neex jàpp ne sëñ bi gisu la bu ko yaakaar ci bàmmeel ne ndax ginnaaw jàpp nga ne gisu la fee gisu la gisu la gisu la ci bàmmeel bi loolu moom amul sikki sàkk kon nanu góorgóorlu bu baax ñun ñëpp ci njub sagalee ko sañ Touba. wax na ne itam. wax na ne itam. am na loo xam du ma ko baale mukk. ku ma ko def man sëñ Touba. bu saa taxawee. danañ ñu àtte man ne yow sëñ Touba. moo xam képp koo xam daa dégg sama tur. nee na képp ku dégg turam. bëgg ma bëgg ma. di ma nemmeeku. yem ci kenn ci waa kër gi. yem ci kenn ci waa kër gi. gis ci yow lu mu lay xeebe. gis ci yow lu lay xeebe. ba wàññi ko ba wàññi ko. nee na ak boobu man sëñ Tuubaa baalu ma la ko. kon bépp taalibe fu mu ne. lu mu tuuti tuuti. lu mu xeebu xeebu. muy góor muy jigéen. na représenté sëñ Tuubaa fa mu ne. ci jom ci jom. ci ngor ci ngor. ci fulla ci fayda ci diine. waaw waaw ak liggéey. Nango liggey nango jaamu yalla motax ken duñu xeb ken duñu yab ken du xeb sëñ touba ken du yab sëñ touba di ko jaarale ci ñun ndax ku liggéeyut dana la jéppi da nga jéppee ndax mënoo ñàkk bañ am soxla te boba di nga talal loxo ki ngay talal loxo bu yorul lu mu lay laaj dana la way di nga ko jéppi liggéey mooy tax loo bëgg a faj faj ko waaw màggal gii xaalis sa koy def de liggéey koy maye ñu góorgóorlu ci njàng mi ñuy góorgóorlu ci liggéey bi ñu dana am ci xéewal yi mën a am ci xéewal yi liggéey yelee ko borom Touba jëf bu so lal njaboot gi fu waay toll na tàllal amin amin amin amin amin amin amin amin amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin amin amiin amiin amiin yaa rabbal alamin raayoo leen kenn ku ne na wax sëñ Mamour Bousso yàlla na fi yàgg te